xëy na ngeen corrigé ko ci diggante bi moo tax mu woote dialogue pour ngeen toog waxtaan. quelque amoon dialogue amoon na c'était pour éviter situation bi ñu nekk nii discuter woon nañ ci parrainage yi pour ñu defee ko euh, euh, noo xam ne euh, dina jaar yoon mais teewul dans les fait gis nañ ne parrainage yi ni mu jaaree nekkul li gën. Mhm. dysfonctionnement mënul ñàkk kenn waxul ne conseil constitutionnel dañoo parfait ci seen décision yëpp waaye seen décision. Euh, dañ koy accepter pour mun a avancer. mais de là Nous, à y en deux woon euh, président Khalifa Sall a été recalé comme président Karim Wade mais newuñu suñu candidat bu jàllul élection du fi am. Mhm. te xam nañ ne condition yu ñu ar euh, recalé woon suñu candidat nekkul condition yu normal mhm. donc li mun a tax ñu pousse élection. loi bi lenn rek la la prévoir mooy en cas de décès ci benn candidat te su boobaa nekkul sa président de la république mooy pousse élection mm-hmm. euh, conseil constitutionnel mooy proposer une autre date mm-hmm. donc moom décret bi mu jël c'est un décret illégal parce que moom loi moo ko may ay pouvoir de chef d'état mu mun a jël yenn décision yi loi moo encadré ses pouvoir mm-hmm. ci pouvoir yooyu que loi jox loi da ko ne bu élection yi di waaj a ñëw ah tant de jours danga nga war a convoquer le collège électoral mooy décret bi mu jëloon mm-hmm. donc décret bi mu jëloon nekkul ci coobare boppam loi moo ko obligé ne ko mm-hmm. jëlal décret boobu donc moom amul fenn fu code électoral prévoir que le président de la république peut prendre un décret pour abroger le premier décret qu'il avait ah, pris